Eh, jawrin king zalbu bu king king zal bu ngañ king zal bu acha ah. bo pare imba ga exactement ke waral na eh, king zal king zal li ko waralon te mi misur na ko rek i musul na ko sa tiga bela mo trop koy i belam fi adar am gidim ka wi écrit ne écrit bul bayeku ande écrit ne wami lay te kan jega ona ngolok ko ronge te jega ona waxe ke susun avec groupe le arafa grand in arafa mag in arɓe wana soña in chaque jour i oxeke laysatanano lagane ba boya te ɓatuluñ décourager a bug tige a moƴno buga in chaque jour 18 heures taxoye in o kiino kiin refona ngari meke ngatu meke entraînement o anda kene bo kiine fena xane a refo maak i e ndefa xa caaƴ ka i mbato jego joom mbaño décourager o o ten koy e te ref yaal xeñ mosu bari ke siñ cuuba mbake mosuro ge tele sewdi sofu fowano kiin mu ta ɓeerna a way fe ma ndax bege kaf jal affaire kene mbeɗa hopte ma gume mais kotofnani mbiyano leano leyano gaɗano koroga ciino woddo a ciino no ɗum ten ando ke dabugna yal sorga no ten i wene na mafrel mi koy mi mafrandem mais mi joom kam bugin mi joom joom ñowa billahi simna fop simna yones mbay guy simna yones gara mbañik oxey gara mbañik mako xa bo xey ko xey kam bugo detanamo ten oxeke a fela roog xano kam coom ke te manga njaay o boyo xot abuy kete fiya i fo weke fop sim xaƴimo leng i laya koye vraiment il faut adgoy adgoy fa neke lang koy kam bugun écrit neke fela roog xani njego mes a mbi xana o ko fela roog ndax a soɓay contact a saqanu yo a soɓ a saqanu yo kon koy lengo yaqu sutu koɓale mafrique lo i to yit combat kene mbakelo palmarin i mbugoyo te ndax and na supporter roki bawol bari ke siñ cuba meke jeg na to combat fo fa kono ricukino and na bawol fo mobiliser fo mobiliser o ande maga taxat to i bug koy xene tagar meke a gara ley fo siwdis fa neeke andoona yee ten saq te rew a lay fo ten Mbaye Gouy Gui xaye a jeg bugoy combat gara Mbagnick Noir bugoy combat Bathia bugoy combat meke Maya May Pire a May Pire i simna nuun ko nuun TV TV ke i Mbine Yalane TV ke simna simnang wo ndax vraiment nuun moom lip simple ne kan kan mboote ka mosna mboote o nayes na trop i ndax njom xane reta xane bus yuxane nuno tax nuno tax yoxane a jega jamano mbir kam maf bo xaƴ o leŋ an mais nuno chaque jour nun ndefo ke i mbugno mbe'o kama koɓale ndax ino kon ke ino koy vraiment nuun ando ke mbugno daal yal sorgo fi'an na nuun yal keke ref bo refa télé i bo in fop i ngeeɗo te i bega fop ziara fop koy i rafet na euh, chef waaw maxey ziare a nuun maa ngi leen di ziare di leen gërëm di leen sant waaw o ko defee képp kuy waaj Bambey rek képp kuy waj Bambey maa ngi lay ziare di la bëggee waa Asalem waa Bentali waa Medina waa Kastor ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen ziare waaw man la Seydou Diis nag écrit bul bàyyeeku. waaw mën nañu xam exactement lan moo tax nga créé écrit bi ak lan moo tax nga tuddee ko bul bàyyeeku. waaw boo gisee ma créé écrit bul bàyyeeku bul bàyyeeku xam nga ne bul bàyyeeku boo bàyyeekuwul rek moom yaa ngi ci à forme yaa ngi ci li nga nekk mais boo bàyyeekoo mooy saye yàqu nga mais chaque jour boo nekkee ci wax boobu rek bul bàyyeeku yaa ngi concentré wu ci li ngay def yaa ngi wu ci li nga nekk mm. dangay ngay sa bopp lamb boo ci nekkee boo ko dara moo waral ma def bul bàyyeeku waaw maa ngi ciy kontaan nag di gërëm gars bu baax baax waaw. mais euh, booy nan nga def ba dajale leen. booy yi euh, te dëkkoog ñoom parce que ñii na nga dëkk euh, caatake mbog rek quoi ñii nga dëkk fee ñii dëkk Fissel dëkk ñoo def ba dajale leen. waaw booy bi ni def ba dajale len nak xam nga ñu man kuma xamul it dégg nga sama tur sew ci dëkk ya setan nañ ma booy yu bari fi bi may bore ay combat ñoo ngi toog di ma ndax ni may wax ak yow nii bëri naa onze combats frappe ñaar défaite la am yëpp dama daan gars yi ñi may wax ni télé laay waxee ñëpp seetaan nañ ko waa drapeau yaa ngi gale yëpp léegi ñoonu yëg nañ maa seetaan nag xam nga ne ñii comme ni ma wax nii képp kuy waj Bambey xam ga ma moo biñ ma xamee nag ma neex leen ba pare ma ubbi yaatal ñoom ñëpp ku mu neex fii mu saaga ma du ma mer chaque jour entraînement yi fii nii maa ngi leen di wax lu ne di leen saaga ñoom kenn du wax di la forcer di la door ñu muñ su leen neexoon ñu door ma ñoom ma doole moo waral nag ma woo leen ñoom ñëpp ñu gis ma li may def neex leen ma boole leen ni ma ne nañ créer écrit bul bàyyeeku ñu ne waaw ñu ànd ci ma ubbi ci groupe ñu nekk ci nag di entraîner normal kontaan naa ci nag waaw ndax drapeau yaa ngi ñëw combat yaa ngi am boo yaa ngi daan léegi bëgg naa nag ay combat comme li Saal Saal wax léegi rek mhm. combat yooyu may may lancé mooy palmarin combat yooyu am foofu ay caajaay ay Joal ay Mbour komba yooyu promoteur yi maa ngi leen di lancé am naa fi ay mbor yoo xam ne am nañu mbooloo ku ci ñam sama loxo dal, barke alquranu karim di nga ñëwaat ndax boy am nañ mbolo normalement wa bawol dañu mëna jënd bolok te yeen bolok ngeen di téggé combat ku indi fi yow dégg na benn promoteur demu naan benn bolok lay joxe lolu bo ñëwé fi dañ koy këlemti ko ñaari bolok sax day jeex waaw lolu mom assuré naa ko promoteur dañ ci contane moom waaw loolu moom promoteur dañ ci contane mais xam nga ku xam saoudis xam xam nga rajaxé sa digënd ak rajaxé loo ñu ci may tuuti rajaxé comme ni ma def fii rek boy yëg nañ ma sétane rajaxé it la démé bi may boré de xamantel magam mu ne mu woo ma seen dëkk ma dem fekk Fara Jaxe di bëre mu may toogal ci mukaay Rajaxe booy bu ndaw la boo koy wax nii gars yi duñ ko gëm Rajaxe 2016 la dugg ci lam 2015 2014 moo doon toog sama ci mukaay may bëre di bëre gañaaw xam nga gañaay bu baax ay mboxodof ay mbeel soob ay jamagen ay mbulading coombi ak ganjaay fépp lambu Babacar foofu yëpp bëre naa fa Rajaxe moo doon toog ci bi loolu moo ñu boole ba nii Rajaxe ma ko bu contact di ko daan di ko jàngal bëre adduna di dem nag boobu su ma koy daan muy tex ma xam ne saa waay dina <laughs> nekk mbër waaw yàlla def na léegi champion la na koy yàlla defal jam chef de l'État bii muy dem ni yàlla na ko yàlla may ndam mu jël équipe nationale jël catégorie maa ngi ko ñaanal rajaxe bu baax a baax waaw léegi promoteur yi nekk Dakar loolu leen di wax par rapport parce que dëgg naane yaa ngi wax ne euh, benn bloc dañ ko kalam kalamti ko ñaari bloc du doy léegi promoteur yi Dakar doo leen woo pour ñu ñëw jàppal ci boy yi nga am combat nga dem laa gën a bëgg sax ndax am naa fi waa joo xam ne am na fi cinq combat noiro mbay guy gi ku ne gis na day bëri ay combat Bambey mais combat yooyu du du du du nekk CNG quoi du nekk ci palmarèsu Dakar waaye mbay day mobiliser ba stade am na combat bu ma amoon dafa toj ndax bari ay nit moo ko euh, ngom xoori bu raay bi seen combat daa toj ndax bëri nit promoteur Dakar maa ngi leen di lancé ngeen ñëw fii jël boy yi waaw ku ci ñam sama boy dal wallahi taalaxi dim ko doli ndax yéen poter rek mo tax ngeen tegg di tegg ay mbor amna boy yu bari mënu ñu dara ci bore waye dañoo am mbolo di bore ñi nek mbor yi nak ñu ngi ci écrit yi daqa mënu ñu am combat man nak amna boy yu am mbolo boy yu am boy yu am jom te suñu supporter dañuy liggéey yaakaaru ñu ay maire ku leen jënal bolok ñoy liggéey ni dem jënd billet barke alcorane karim lool dafa demee quoi. fan yi ñu gis na yow yaa ngi nekk entraîneur sa écrit ba pare ñu gis ne da ngaa nekk bu bees nga tip top tip top bi loolu <laughs> loolu looy wax ci loolu. sëriñ nga non xam nga lépp laa rek waaw dañ may caméra xam nga yenn saa rek may neexal gars comme ni ko gars yi waxee rek man mom non stress rek laay dund jàmm rek. waaw xaw ma xeex xaw ma xiiroo xaw ma ŋaayoo moo tax may jéem a def vidéo yooyu xam nga bi dindi stress yi ndax loolu boo koy def da nga ciy am sax tiyaaba waaw léegi bu ko defee nag Mbine Yalane TV yen ñëpp maa ngi leen di lancé ku nek écrit bul bayeeku kuy supporter mbor bu nek écrit bul nga abonel mbin yalan TV Mbine yalan TV jëm ci kanam yal na law bu ci kaw ay télé télé télé wa wa asalem yep asalem ku ñu da ngay dem wallahi ma ngi leen di laase yeen ñëpp ku nek marché asalem xam nga suñu garage dina Aline mbin yalan TV nga abonné ko rang muy mbin yalan TV wow, autorité autorité yi loo leen wax ñi nga xamante da nga autorité séeréer te duñ nyun, mbëri séeréer lu ñoon di wax non xam nga autorité du amul police amul nguur amul autorité ñun ñoo ci ëpp ñun mbokku séeréer yi léegi ot kii boo dem tey société boo dem tey séeréer yi ñoo fa ëpp mais du ñu jàppale seen i mbokk dangay ngay gis séeréer boo xam ne daa am xaalis am kër Dakar wala Mbour doo wax sax kii sa genn xeet quoi nañ ma baal ci kii bi nga genn xeet di jàppale ay mboru olof da ngay gis kii séeréer boo xam ne day jàppale ay ñoom Balla Gaye ak ay mboru olof ay aadafaas to am ñooñu ay champion séeréer nga xam ne ku leen puus ñu dem mais looloo waral tey mënuñu am ay combat ak ni ñu mën a bore da ngay gis booy bi mën a bëre am talent du mën a dem ci arène bi ndax amul ku ko jàppale ndax boo tegalee fii nit mën dafee sal stade bi to bu booy yooyu boo gisee ñuy fetal stade da ngay gis da ngay dem ci meen bi mu jën ay bolok yu bari mu may booy ñu dem booy yi liggéeyuñu mais bu dee ñun ñii nag ñu ngi sant yàlla ndax am nañu ay supporters yu liggéey waaye autorités yi maa ngi leen di ñaax di leen ñaan ngeen jàppale mbaru séeréer yi Yékini ba mu demee ni mënatuñu am champion to am na ñu ay mbër yoo xam ne ñoo daq a bëre Yékini barke alxuraanu karim waaye amuñu jàppale Yékini nag dafa amoon jàppale ku ne xam na ne li doon ñëw ci ay stade supporters yëpp dañ ko dañ leen doon jàppale di leen jox ay billets Yékini daa amoon sens boobu mais ma di ñaan rek ngir yàlla ngeen jàppale suñu mboru séeréer ñu amaat ku mel ni Yékini ak ko raw loolu ñu koy ñaan. maa ngi dégg sànq aussi di jooy ne balance bi dañu bëgg a bëri fii Dakar mais biñu demee presque biñu ñëwee ñoom ay poids leen di bind poids lourd balance bi loolu ci wax en tant que coach jaar na ci waaw balance boobu moom maa ngi koy ñaawlu moom CNG na dindi balance bi ak favori favori balance lan mooy favori favori mooy maanaam ngeen ñëw fanaan stade bala nga ñëw cinq heures du matin ay deux cent et toog di xaar CNG CNG ndekki ba suur nelew ba doyal ndekki ba suur ñëw ndanka toog ne booy ran leen ngeen ran muy tege balance koo xam ne daa jóge àll ba yoru junni kese paas ci aller retour du jeexal nga ñëw nga teg ko ci balance mu ëpp nga ne ko doo bind mu toog fee di jooy loolu du yoon ñu ngi koy ñaawlu nañ ko dindi ba pare fafori loolu itam moo gën a métti même balance bi bu dañul nañ dindi fafori bi favori mooy maanaam dañuy ñëw naan ñi demoon chef de l'état ak ku mës ku mës a def demi final gis favori boo xam ne daaw la géej a finaalu da ngay saxastalu finaalu benn yoon ñu naan favori nga toog boo ñëwee premier tour nga nga ñëwaat premier tour nga daanu ba année bi ñu naan favori loolu du favori favori koo xam ne saa yu ñëwee lekk ci xaalis bi mais favori boo xam ne daaw nga géej a finaalu ñu naan favori la léegi favori yi dañuy nele ba midi ñu ñëw yow nga fanaan fa ñu woo ñoo ñu mu bindu ñi bi yow nga nekk fa di raa di buuxante du yoon favori boo xam ne yow moom benn yoon nga fa lool loolu favori xam nga xam nga loolu noonu est-ce que nekkul ne li ñuy limité mbëri 64 moo war a loolu parce que bu njëkk dañ doon bind rek moom bu amoon 1000 personnes sax dañ leen di bind mais mais li ñuy limité mbëri 64 loolu est-ce que arrangé na mbër arrangé wul teel a woote trois heures na def fu ne cent ay deux man gis naa ko fi ay deux cent litres loolu day am alba sax gis nga ko day am ah, waaw am na lam bu mujjee dem caajaay nii poids léger bi cent la sawaay moo ko jër ñoxor alias Diène loolu mooy yoon mais man moom dara météo ma lu dul favori favori moo ma métti waaw favori daal moo a métti nañ ko dindi favori boo xam ne yow daaw nga géej a finaalu ñu naan favori nga yaa fi mon loolu du yoon favori mooy boo ñëwee rek jàll loolooy favori nangu naa lool waaye koo xam ne da ngaa faqasalu demi final mooy lan demi final ak ki daanu premier tour presque benn la loolu nañ ko dindi ngir yàlla waaw. waa CNG ñu ngi dégg acca looy tàggatoo. waaw maay tàggatoo rek di gërëm gars yi di leen ñaax. booy ngeen am jom nag góorgóorlu ngeen am jom góorgóorlu fonk seen bopp teel a tëdd. bay jigéen ñi lamb ak jigéen àndul da ngay lamb ba pare door a jigéen ñi gis nga booy topp jigéen yi nii da ngay teel a yàqu. mais boo boree concentré wu am xaalis loo ñaaw ñaaw da ngay jot ci ba doyal léegi ñoom yëkk ni ñuy bàyyi bore ñoom ba baaboy tey lu leen neex ñu def am nañu xaalis léegi jigéen ñi dañ leen topp. mais boo bëggee bëre bëgg a topp jigéen doo dem fen jigéen moom day yàq lamb moom day toj galaaj même boo amee doole sa galaaj day yàqu xam nga boo ko topee sa doole day dem jigéen bokkul ak lamba ngir yàlla nañu sérieux teel a tëdd fonk seeni waajur yi respecté seeni mbok boo rombee nit nga nuyu ko loolu day mayee fan si del wàcc di nuyu gaay yi yegg gaay yi mais bul aju naan nii gis nga mbor day wàcce boppam loolu laa ñaax mbër yi daal mbër yu ndaw yi waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant sama équipe bi yéen ñëpp waaw ñoom King Sall guy gi jilaas a ngi nii waaw at guy gi bay guy gi noiro ñoo ñëpp Zambala gis ngeen baj yaa ma gën a xam Sall mu ngi nii gaa yëpp mën da wax ko waa gaan waaw vie Manga Ndiaye mu ngi nii Mohamed Boussoum mu ngi nii njool mi gis nga kii nga xam nga ne mën na bo rek ndigal bu waay waaw buur si na ngi nii waaw dumut waaw aja yëpp daal boo ma juum lay gërëm rek lay gërëm bu a baax aja yan bin nan fiyo kores men rek ba wona jabo dam fama yok santar ba tagde ni merande meranga o fappa wala ndigi wala nam golle golle mi may neena Saliou Faye Saliou Faye waaw xoy waan sambala ñom ni ko wax sambala numéro 1 numéro 2 am numéro 3 numéro 2 numéro 2 ya xagaw na sambala ko xoy waa sambala sambala ka def mbir na felaxa mako waa a ref mbir na andona yit a waga ke fiya manam Séverine no jom tafrefa xa felaxa mako waa te taxum jang gonum xol wan quoi est ce que andang Zambala no i njotowle andir koy mais inchallah xeɗame roog i andir buga nu andir bugaam xa ɓekon no jam mi jom a ref bug bugo rek feke waango lay daal nam refu mo ndeɓandong no jom jom daal ten refu ka felaxama quoi ay musique kene fop mos ref ka felaxama jom daal ref mos ka felaxama tem ñoowa yit to bugaanum no xeñes quoi waaw i nam ga to njom actuellement njom ne waaw af jomna eh, afela no njega ka dum lain njega dum lain sa ka tebo no ko tulu indefu ah kay ndeta kay ngara mene sa ko ndanga ni mbago wule sutu ko bale lam dole ifo dafule naga ta nda ina tebo no indefu imba sutu ko bale ndawi pur make ta jegna dem worna to non de bon donc mom on nga ya bon oh, nang etalang o oh, nana to kay ngara mene dakar o bala sele mana imbagge ma fe sa raw gadu mi musti fi raw gadu dakar le sem fiya waaw kene foge no ke yaqna njom ne quoi parce que a mbatnangaam no bala sole bila wala njom naaga fel a ɗoyitkangaan xane a a Dakar xane o basa taxu mbaage maafrel Dakar kon o basa ta mbar mbatin me quoi i mbaago maafrel njom naago fel waaw maaga eh, interpeller ka pour na plan sole Bira Sene ndax manga fe andoona ten andanu njom ɓuuɓ pour ta ndimle a nuun a mbatna plan den ɗik fop um layka daal mbi' daal ba mbatnin o bala sole in wen kada den tambati mino bala zole kuba ambugo ngambu jembelu fa tambati mino bala zole imbago mavrel waaw sega uh, ah, o leta ngan xane njom dakara ofela mais sane ke muy lolu ko ga boy xano muy xano ka ngara uh, mi fene ga ngam neke ga nga geles ko fo ga ke no mo jaan de wondo ngul ñefum mi wara mo fiya xane kina raw go acaf raw go mais metraf na sane ke musim ma re acaf gara dakar ah, kilas dum tout à fait normal kenn yàq kenn yàqu njom ni quoi mbaɗa den tambat no mi mbaɗa sole waaw mbaɗa sole moom instant ke pir ke lool moom instant nene eh, est ce que autorité autorité locale ke menu ngenna autorité ke ngenna ay maire in kene ken wen est ce que est ce que we ndamta nuun non a soɓanga ngilo bugo moom wene moom ndamta fula in moom ndamta fula in ngestoxana in dara instant nene moom mbaga waago leyin ndigil xane manaam in daal njom ref ka felna in i ñoowan ñaaƴa mbiida maafrel mais a soɓanga ngilo bugo a tamit moom jega fula a tamit i njegoofulee teen dara dara dara waaw xeɗa koy oxu waagna damta in roog a tax o damta in quoi c'est que ino ke i mbi'aa i mbugaanyo ta ñora in te i njeganga te tamit a xay gimaam xay mbaag o ndet quoi waaw daal jegum ka layma a mosa koor jaajëfa Bac Ndiaye Bac Ndiaye euh, Bac fop jam kay hmm, nam saaxlo yo fel nam koor ne in way took Bac Normal. Ah, cer ka de nam nan a wora roog moƴu woraade o fog mami fisel mbaɗa fisel mbaɗan eh. mais jom nene ka finen fisel a yoqlu ndiki wala nguñan ko xa waralu kene bo mene jegatu pir ke a ah, ge'ano rek ngim jom rek ñoowan i mhm. eh, ndef pir tamit mbugin te ref no fo oy in quoi xan ɓekong no jom jom xeƴa neke rek bugin tamit to lamin no faap caci es Mm-hmm. bugin euh, tamit ñoom woy convocation ɗike ñoom xawne fo ñoom ɓuɓno ɓeno ñoom ɓuɓnan refo fulo non fulim joom xawne ko ñume joom ɓuuɓ jega fulim licence borere dor quoi i joom ɓuuɓ refum combat bet bet angan koy nama fika ah. mm, jang awas ne mafre soom to soxlaam sax combat soxla combat yim jang ñoom ɓuuɓ ne i mbaag an exactement sorti pot fiyo no ren nag am jegu plaisir quoi bo na saison ne wektu jega fulim sorti quoi mais may préparer am quoi మేము ఒక ఒక nekk ñu den temps may an quoi nam nga to écrit écrit ne moom vraiment wax dëgg neex yàlla a normal ay a yar wayo tam a gara paax ndefu meen we ndamta in in we ndefna boy ke meen we ndamta in a mbi'a couré na na in surtout o gara leyke na sport na in tamitam itam oxey fi'a fop i njege ndabidum daal fo salle feke andoona yee ka ñaxa in quoi chaque jour ay ñoom mbay guy gi noiro in we gaay fop daal waasimo leŋ daal xar fo ke ɗomna nuun no jom ne fo ga ando naye ten ne ke ando naye daal suƴangan changer no règle coté règlement wala daal no jom ne daal a ah, puwane te mbi'na rek a lay i mbaag ke maaf o drapeau le i ndenta neke i a ɓisa in poids lourd daal i to i mbada i ndawa fule poids lourd ke i sañ'anga ta mbatin o balage ole i mbaago maafirin mais wena maafrel neke tamitam kene ke i tolora fa den daal i mbaaga maafir ten ne wa nege blanche lene ka i nga blanche lene ta dayo to réglement fe ka waɗo au niveau national xa taxu da no réglement fe ne dakar soom to koɓala euh, poids nu no kene ta maaf rek a refanga comme le cas euh, o xene gen jaxaw cefa um toñin sax au passage cefa maxey simnang siarang a paax cefa ka bina ka bina ragot parce que de jangu ragot ke coomi ka bina poids léger to a garanga me a bina poids lourd xanu ley kanu kene non ka mbaro mbat no balage ole koy in fop i mbaago maafrel cafa ke mba wene mbago maafrel rawgadu ke tamit nda anda ye neke i ndenta in weke o ɓisanga in poids lourd tamitam moylo linda poids in dafule poids lourd kon fata ɗito balance le dakaru mbago mare le dakaru tamit lam jomne tamit aje ko bala tamit mais ko bala zo madoya a ga dakar neke i fatam ɗito balale i mbago mare in fop kona balance le dal refu teen ka andoona yee dal ten yaacu ɗomanun iya torop sax to ambat ni ange sax ta fani le point ke il faut limitation ke ta limité 64 kene fop jege problème non kene fop garawe quoi njomo rek mm, nene njoma den ta i njom moom ne rek i xar fu secret mbir mbir xar fu secret um ko sport fo doole ñam giñ wondu dan kaga zomo mon est ce mbira wara ñaƴa bo ay minuit une heure du matin réveil normal i o hatanga sport nege gatid wara o wago o juwanga bu giñu wondu récupéré o yokwanga faja ret sport ik quoi i ke powre nambir tamit may lase ak message nene quoi ndiga xaro lay ka uh, euh gendandof fo ena ndamtanuno jom ne fo dal kado fo a gara ke den ta neke sax in refu a gara es me gidma den siyaare a den tamitam to laya den ee ta ndam a ndama me fata ɓaato ndam quoi i a moƴo ndamta in tamitam a moƴo ngoorgoorlu waasiim o leŋ daal oxu na yermagonum it damiye weecanga weec mais fop um ne'a neeke itamit we ndeena terrain le ay ñoom Zal Mbaye Gouy Gui waaw Seydou Diz tamit fop gidmaden sante aden dal boy ke ndefna meen neke fop ina i ngara meke espora tout ndamtira in fop may gidma den a paax to we ndama ten quoi fa gara ke bac Ndiaye ne'em ok merci